délégué de quartier yi ak conseil de quartier yi ñu amoon 33 gars quartier tey bi yoon nag ñu boole si waa Kër Barke ñu jugee ba Gandiol euh, ñoo fekkee bés bi donc ñu doon suñu invité d'honneur ñu boole ci ñi nga xamante ne ñooy cap au bonheur des enfants xale yi nekk ci crèche crèche bi ak ci ak ci euh, garderie bi boole ci nag 33 quartiers yëpp nag ku wax 33 quartier bu ci nekk nga jël ci 12 enfants nga war leen jox cadeau ñu ngi ci 600 et quelques cadeaux donc di ñaan yàlla année prochaine toujours damay ñaan rek autorités yi ñu jàpp ci suñu partenaires yi ñu jàpp ci ñun dañuy naan nañ indi ay cadeau rek waxu bugguñu dara ku indi cadeau rek ñu indi defar wala ñu emballé def à ah, joxe xale yi mm. donc di ñaan yàlla année prochaine encore seen damay appel rek ku ci mun jàpp na ci jàpp ndax xale yi dañuy gën di bëri ku gën dégg arbre de Noël da nga naan damay inscrire sama doom donc di yaakaar ni rek man de xam naa fii ak may dund yàlla damay may bakkan dinaa faral di ko def ak samay mbokk ñi may àndal sama jëkkër rek sama famille ñoom ñëpp jàpp nañ ci donc di ñaan yàlla yàlla may ñu kàttan bi nga xamante ni nañ ko mën a ci def di si jàng di si jàpp wa ñoom gérant ñoom Assane ak ñoom Ousseynou euh, ñëpp daal ñoom as ñoom Astou ñoom euh, ñëpp ñoom Estelle ñépp ñoom maas ñëpp daal ñi nga xamante ni daal chaque année ñu jàpp ci fête bi xale yu ndaw yi ñii di takk di kii eh, di def cadeau yi vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant yàlla ñu yàlla may ba année prochaine ñu fekkee bi yoon def nañu 700 enfants l'année prochaine yàlla ñu yàlla may ñu àgg ci 1000 enfants donc di ñaan autorité bi ci jàppee dina neex sant leen loolu xale yi donc activité yi ñu ngi continuer ba le 27 le 27 c'est le grand bi ñu ciy def euh, ñu ciy def aussi élection Miss Cap au bonheur des enfants c'est le vingt 27 décembre à partir de 15h30 Mama Sadio dina ko teewe Abdou Guité dina teewe ak euh, Ada Koli donc xale yi ñëw leen ñu ngi leen di xaar fii ci Cap au bonheur des enfants le 31 décembre nag di du bébé de la l'année soirée de solidarité dañuy toog fii reer dîner ak autorités locales yi di ñaan yàlla ñëpp nañu ñëw des décembre bi moom dañuy àndandoo ñu ñëpp di femme di woo association des fem coiffeuses dinaa leen seeti di woo association femme ndar tuuti yi nga xam ne daaw ñoo ci jàpp ba mu baax ñoom ñëpp dinaa leen seet si ñuy ñëw jàpp ci ba affaire bi baax ndax année daaw neexoon na torop ren daal nañu yàlla may mu gën a neex jërëjëf journaliste yi